dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéene kaay ñu xëyeen xëyandoo daw ba raw ci ngóor la bokk état bu Sénégal daw na wàqat ci nag dogal yi nga xamante ni jëloon na ko ci réew mi aju ci état d'urgence bi ndax fan yi nga xam ne maanaam moom la ñu génn transporteurs yi mayu ñu ko woon jàmm ak ndaw ñi nga xam ne maanaam couvre-feu bi bëggoon nañ ñu daal di koy xoolaat yéene kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal naan ñu en tout cas li am ba des yi jur na njariñ ci ñenn ñi ndax nag tax na état bu Sénégal deltu ginnaaw bu baax a baax yoo xamal mbir ndax lu soxal wàllum transport interurbain beek salle de sport yeeg restaurant yi ak couvre-feu bi loolee lépp état Sénégal xoolaat naka Assane Samb ne couvre-feu bi 23h 5h du matin war nañoo expliquer Sénégal yi ban njariñ la am yéen a kaay gii de la témoin na amul benn njariñ ndax état bu Sénégal askan wi manifester loole moo tax état bi deltu ginnaaw te couvre-feu bi léegi na ñu koo tuddee couvre-sommet ndax liggéey liggéeykat yeeg ñi responsable ñëpp maanaam 23h ci seenub lan la leen di fekk xale yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci mbedd mi jamono ji ñoo gañ a bi ñooñu ñoo tax état d'urgence bi ñu xoolaat ko ndax di Touba di Mbàkke di Dakar maanaam ay ndaw ñoo génn ñàkkantek ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi Macky Sall daal di daw deuxième li nga xam ne moo am ba des fan yi ñu génn gisoon nañ fi ay kilifa diine ak i ndaw yoo xam ne ba ñu manifester maanaam ne ñu julli ci nii wala ci naa ci la Macky Sall ubbi bërëbu jaamukaay yàlla yi fan yi Macky Sall waxoon njàng meeg njàngale mi dana daal di commencé waat ñaari fan ci weeru juin bi ñu dégg jàngalekat yi ne benn cas rek benn enseignant bu ñu déggee am na coronavirus maanaam danañu tëjaat l'école yi ci la ñu gis na état bu Sénégal deltuwaat na ginnaaw xamal naan ñu nguurug Sénégal kay mooy doxee noo xam ne bu ñu ko ñaq-ñaqalee rek mu daal di daw deuxième laas yéene kay mu ñu xamal naan ñu bu ñu wax waxantee dëgg jamono ji moom maanaam mën nañoo wax ne dañoo bàyyeeko ndax ma Sall ubbil na yoon yi manaam virus bi bu ko neexee mu jàbba jonge nu mu ko neexee journal bi di réew mi quotidien mu ñu xamal naan ñu virus bi kay jamono ji maanaam dañu koo sabamtal lijjanteetuñu ko gars yi ñoo ngi dox seen yite gars yi dañoo gën a bàyyeeko keroog ba Macky Sall waxee na na ñu dund ak jàngoro ji booba ba léegi nii gis nañ ne maanaam mbir mi ci ak tàgga témbe la jëm yéene ay kaay ko di Sud Quotidien mu ñu xamal ñu Macky Sall yoxamal na mbir yi docteur Souleymane Lo di ab sociologue la mu xamle nee na état bu Sénégal maanaam dafa daw deuxième te waral mooy manifestation yi waaye nag li baaxul ci réew mi te état bu Sénégal lépp moom la ndax njomba yeeg giraawal yeeg tojaanga yi nga xam ne maanaam def na ko ci réew mi moo bëri yéen a kaay gi di moom mu xëy di ñu xamal naan ñu Sénégal jamono ji maanaam bu ñu waxantee dëgg noppi nañ ngir dund ak jàngoro ji Abdoulaye Diouf Sarr ne jàngoro ji maîtriser nañ ko yéen kaay gi di mu ñu xamal ñu manifestation yi nga xam ne moo amoon sa diiwaanu Kaolack am na benn ndaw boo xamante ni auto police moo jaaroon si moom di Alioune Diouf jamono ji ci ay xibaar maa ngi ci réanimation maanaam nag ak wér gi yaramam daat nay tagga témbel loola yéen kaay gi ñu fekk fa docteur Soxna la mu le nee na état bu Sénégal jamono ji moo bàyyi askan wi ngir ñu dund ak jàngoro ji te nag maanaam giraawaali gu rëy mën naa am ci réew mi Moustapha Diagne mi nga xam ne moo yor kàddu ko ministre bi ñu dénk njàng mu diggu doomu daal di xëy xamle ne lu toll ci fukk ak juróom ci ay jàngalekat maanaam daal dañu amee wopp noppi coronavirus yéene kaay gi mu ñu xamal lan ñu am na ab policier boo xam ne dañu koo teg loxo ndax da doon def transport ci interurbain bi maanaam doon fayeeku xaalis journal bi di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu Assane Diouf tey jii dina daal di jano ak doyen de justice ni ki démb la ñu waroon a jano waaye ay avocat ñoo tax ñu daal di koy dàq yéene kaay gi di libération mu xëy di ñu xamal lan ñu Assane Diouf maanaam su ngeen déggee ñu ne jël nañ ko mbogo mbogo ko yóbbu ko ci kasu bi bu mu leen bett maanaam guddeem gu njëkk tey jii bu ko fanaanee rëbës bu mu leen bett yéene kaay gi di libération nee na moom Assane Diouf Diouf démb maanaam enquêteurs yi laaj nañ ko lu toll ci ñaar fukk ak benn ci ay laaj laaj yooyu Assane Diouf dafa lànk kandaare ne maanaam du ci tontu benn yéenekaay gi di réew mi quotidien dikk ci scandale bi nga xam ne ay xale yu jigéen di ay élèves ak étudiants ñoo ko doon def ci cité kër góor gi maanaam di def yëfu saay-saay ñoom ni ki démb doon nañu leen àtte waaye nag soo muytule juróom benn weeri kaso maanaam danañ leen këtëj nettali nañ lu doy waar doy waar ni ki démb ba nga xamante ne sax mooy procureur bi maanaam dafa mujj waaru ci mbir mi yéenekaay gi mu ñu xamal lan ñu mbay ñaa digg digganteem ak ren jamono ji mën nañoo wax ne yàqu na ndax Mbaye ñaa gisul lu dul jóge ren dem olympique Marseille te nag mbir mi jamono ji dafa daal di tagg témbe yéenekaay gi nee na liga bi maanaam ca Espagne léegi tey mu commencé waat te ki nga xam ne mooy Lionel Messi maanaam dafa amee blessure loole moo tax waa Barcelone am njàqare ak tiit